aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy topp ci seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ñu topp ci TikTok ñi ñu topp ci Instagram Facebook ñu ngi nuy ñëpp di leen ziar di ñaan ngeen abonné ci suñu plateforme yëpp di wax ne képp koo xam ne da am gént booy laaj wax nañ ko am na aw yoon soo amee gént da ngay dem ci suñu page YouTube Firi Guent TV officiel comme kuy def recherche YouTube bindal li nga gént dana la indil bi ñu ci def su dee def naa ci vidéo su dee def moo ko ci wala mënoo dem da envoyé audio par whatsapp ci numéro bi mais boobaa da ngay fay 500 Wave wala Orange Money ci suñu numéro bi ngeen jàkkaarloo su dee ñu nekk biti réew extérieur ubbil nañ leen beneen yoon yoon bi mooy par abonnement la 20 euros ngay fay diiru mois bi yëpp loo am gént mën ko envoyé ku mu intéressé mën nga jokkoo ñun ci suñu whatsapp mën nañ la expliquer détails ci topp tey ma indiwaat beneen bunt boo xam ne waxtaanoon nañ ci laaj di ci gën bari mooy gént policier ñi bëgg ko def tënk bu gàtt ci ubbi ci xel nit ñëpp ci policier moo gendarme mu ñëw bokk firi fii li nga jàpp firi gént policier bi si sifatin ama maanaam ci cadre bu général njëlbeen gi da nga jàpp yi lay firi léegi dana firi sécurité maanaam mucc dana firi mucc ci danger baax na ci gént lool kenn ku nekk xam na ni sécu euh, policier rôle du jàpp ay nit di tëj rek maanaam aar nit la kon ci gént dafay firi mucc ci euh, danger waaye di firi sécurité ak stabilité ci nit ki kon baax na ci gént lool bu fekkee da nga kaa gis rek taxdiidan yeneen détails dinaa ci ñëw bu fekkee da ngaa gént gis benn policier wax ma ay policier nga gis benn policier bu taxaw ci sa wet moo xam ca côté ndijoor moo xam sa côté càmmoñ la taxaw lan lay firi day firi atteindre sa objectif ci looy bëgg da ngay jàng bëgg réussir sa njàng da nekk di lijjanti pour tukki danga am projet da nangam lu mën a doon nga gént gis policier bu taxaw sa wati ndeyjoor sa càmmoñ day firi ne loolu da nga jàpp la nag poñe wala poñe la dinaa ci fekkee da nga gént gis policier di la dàq waxuma la mu lay dàq ngay daw da ngay dox gént yaa ngi gis benn policier sa ginnaaw chaque jour day mel da lay biir gént mu topp la sa ginnaaw daw lan lay fi day firi bàkkaar boo def yow aji gént gi jamono yooyu ngay gént gi da nekk di xuus ci ay bakkaar ngir sunu borom di la won ci gént nga teggi sa tànk fi nga ko teg te dem tuub bàkkaar ya te yéene na doote ci dellu comme ni ñu jàngalee tuub wa surutu tawbati an nadamu ala ma faat wa niyatu ala yahuda ila zambin fi ma baqiya min yi nga dem tuubal sa borom bàkkaar yooyu te fas yéene ne bàkkaar yi dootoo ci dellu siwaat ndax léeg sunu borom day wax ak jaamam ci biir ay gént ci nelawam loolu il faut nit ñi xam ko am na loo xam ne du gént yëfu seytaan la yooyu de neeral naa ko ci bunt yi passé waaye nit dina nekk ci géeju bàkkaar suñu borom yi wan ko ci neloon ne ko teggil sa tànk fi nga ko teg baaxul mu góorgóor dem tuubal suñu borom yàlla nag dana jéggalee bàkkaar yépp inna allaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika ba ca ba ca des sax inna allaha allahu inna allah yaghfiru zunuba jamian waa kay suñu borom bàkkaar yépp lay jégal jàmm ko tooñ loolu kon moo dellu ci gént policier taxaw ci sa ci sa wet beneen bi ci des mooy danga gént mbooleem policier taxaw wër la nga nekk ci digg bi jàppuñu la nag danga gént gis nga ay policier yu la wër rek wala nga dox gis ay policier yu bari lan lay firi day firi yëkkati ko ci liggéey liggéey bi ngay def yàlla dina la ci defal yokkute bu dee amoo liggéey di wut danay firi am place liggéeyukaay bu baax baax na ci gént lool danga gént policier dugg ci sa kër sa kër nga jekki benn policier ñëw wala ay policier ñëw ci sa kër day firi texe day firi texe day firi ku nekk ci njàqare ki xat-xat njàqare xat-xat dina dañ ku mu fekk ci jaaxle ay stress wala ay problème problème yooyu dafay jeex da ngaa gént ay policier dugg sa kër jàppuñ la ba tey da ngaa gént benn policier di wool di woo di woo sa tur na di la woo ngay dox mu lay woo naan diwkaay lan lay firi moom it day firi atteindre sa objectif ci looy bëgg wala foo bëgg yegg baax na lool nga gént benn policier ji la ji la enquête di la gëdd di la comme kuy enquête ni lay tiitalee loolu nga gént nekk ci euh, ci ci gént day firi noon yu bari noonu yu am doole te am kàttan kooku baaxul ci gént danga gént policier di la dàqe ñaari maana la am benn bi taayal ak càggante ci yow ci sa liggéey walla ci sa famille wala ci sa jaamu yàlla surtout policier di la dàqee da nga ko gént day firi taayal ci sa liggéey wala ci sa njaboot wala surtout ci sa jàmm yàlla mbaa ci sa liggéey kooku soññ la ci nga góor góorlu ci sa liggéey léeg-léeg nag mu ñëw firi ay xat-xat ak i jafe poñe la jàpp la poñe la ci kanam wala poñe si ginnaaw jàpp la moo tax sànq bu ngeen seetloo sànq ba tey maa ngi wax ne jàpp la bu la jàppee mu poñe la wala mu monote la ci gént baaxul day firi ay coono ki xat loolu baaxul policier jàpp la wala mu monote la baaxul ay xat ak i jafe-jafe lay firi baaxul jigéen boo xam ne dafa gént jëkkëram nekk policier wala mu gént moom waxuma damaa waxoon ne policier jàpp la baaxul mais bu dee da gént policier jàpp sa jëkkër jàppu la yow sa jëkkër la jàpp danay firi cofeel wala mbëggeel gu ëpp ci sa jëkkër ak cofeel gu sa jëkkër am ci yow baax na ci gént kon jarul ragal baax na ci gént balaa ñu continuer ñu ñëwaat ci yii ñu leen doon wan kii bouteille saafara la bu baax boo xam ne képp koo xam ne danga am jafe-jafe cat làmmiñ liggéey rab seytaane ñoo la sonal ba teel a sëy teel a avancé indi la yàqu-yàqu teg lay feebar jëfandikoo saafara bii am na solo te baax na la ko soxla jokkoo nañu ci numéro bi bii pour képp koo xam ne donc say mbir daa tëju ngay wut liggéey mu të ngay liggéey sa liggéey doxul nga bëgg liggéey ba ubbeeku am bayre wala ngay sàkku liggéey wala jigéen boo xam ne sëy da yéex ndax ay yooyu mën nga ko jëfandikoo baax na pour ubbeekoo yooyu kii pour gàllaaju ngóora la góor goo xam ne da am jafe ci sa wàllu ngóora sa mën yi dafa ndoxe ba ëpp sa ngóor dafa euh, desee dëgër wala yu mel noonu wala ngay gaaw a yeeg mën nga ko jëfandikoo dana ko dindi incha allah kii pour hémorroïde la ak ndoxum siti ndoxum siti ku mu sonal mën nga ko jëfandikoo ak boo xam ne hémorroïde la ko ko soxla mën ngeen jokkoo ci ak yeneen yi ngeen soxla yépp kon ñu na ci bunt bi maa ngi doon wax ci policier danga gént policier di la di la di la wër maanaam dangaa tëdd nga gént police di la seet yëngu si sa yaram ci say nelaw ne man police ñu ngi may seet daa am lu ma def comme ku yëg am loo def lan lay firi day firi yow da ngaa nekk ni ko xam ne da ragal sa avenir amuloo nekkuloo nit ku ambitieuse maam doo jël ay responsabilité sa ëllëg ñemewoo amuloo voilà nekkuloo nit ku nit ku ambitieuse daal ci sa ay projet wala bëgg-bëgg kooku loolu lay firi ci gént ci sa personnalité la dellu yow gént policier jàpp kenn ci say doom sa benn doom nga génn di ko jàpp ko baax na loolu day fiir sa doom jooja doom la joo xam ne kuy topp ndigalu waajurum la ëllëg du woro ak waa ak ak ay waajurum koo gént tiit waaye baax na ci gént ci yaay ji ko gént wala papa ji ko gént yeneen yi leen wax ci loolu demeewu noonu gént dafa nekk xam-xam bu sérieux toujours danaa koy wax du xam-xam boo xam ni da koy àtta ci xelam mu ngi ci téere yi ñu bind ay boroom xam-xam yu yu xalaat ci gént yu mag lépp lu leen nit di wax ci gént presque bind nañ ko pare li ñu leen wax nii xëy na budul yenn yi ci ci yi dañuy dajale liir téere yi rek pour mën a exposé li ñu ci wax mooy gént ñu jàpp say doom sa doom baax na day firi sa doom boobu yàlla mën na koo def mu nekk koo xam ne day déggal ay waajuram nga gént sol poli yëre policier baax na day firi changé ci wàllu dund maanaam sa tolluwaay da nga jógee fi nga toll dem fu gën a kawee ci yokkute ci réussite ci détail baax na ci gént gént nekk ci auto police baaxul ci gént maanaam gént police jàppale ba nga nekk ci biir oto bi baaxul wala nga gis auto police baaxul kooku day i ay xat-xat ak njàqare ak jafe-jafe baaxul xale bu jigéen bu amul jëkkër gént gis policier ay policier la wala benn day firi jëkkër ci moom baax na lool ci gént ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan ngeen abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.